Dakar Matin. ñi ngi ak Abdoulaye Ndoye bi nga xamne moy jité syndicat bi du QSEMS, CUSEMS ñom ñoy yor école yi dugg de moy euh tay ji euh, gis nañ ne japp nañ euh bésu 2 juin pour rentrée scolaire bi euh, pour classe yi def examen est ce que yow japp nga ne date bobu date bu baax la te lepp dina yemb pour classe d'examen yi ci wéru août ñu mëna def sen examen te do am ben tolof tolof. Euh, ale li ma mën a wax mooy ni olof Njaay dañuy loo gis rek ñi ci seen xam-xam màcc ñu ci mën a wax ñun nag waa Cusems bi ñu ministre de l' éducation nationale bindee bataaxal di ñu laaj suñu xalaat nu ñuy def ba ñoŋal euh, at bii dañ ko ne nañu déglu waa kër docteur maanaam la comité national de gestion des épidémies ñoom rek ñoo mën a wax ndax nit ñi war nañu mën a dellu.

Jorlen a ay masque ci école bu masques chirurgicaux am gel hydroalcoolique type de lavage des mains Nous wax ni tamit transport bi solo vous devez reprendre école parce que tu dit, il faut que élèves personnel administratif ñu déplacer. donc il faut que nguur gi d'ailleurs nous pour problème déplacement il faut ñu am ay autorisation Nous, bu ci ñaar wala ñetti waxtu ci une danañu à ak ministre bi ak acteurs vidéoconférence loolu danañ ko waxaat parce que carte professionnelle il faut ñu génnee ko nous permettre jàngalekat yi ñu circuler librement sur l'ensemble du territoire national beneen bi mooy dañu ne nañu élaborer un dispositif pour respecter les règles de distanciation physique dans tous les espaces bu ñu espaces espace mooy ci biir cour récréation bi ci biir classe bi booy dugg ak buy génn lu tax ñu wax distanciation physique parce que dañ ne geste barrière amul jaxasoo ñu fexe dandante un mètre au moins mais ñun suñu classe yi da de des classes pléthoriques maanaam élèves yi dañ ci ëpp da nga gis classe boo xam ne dana dem ba téeméeri élèves te dañu ne classe bi warula weesu ñeent fukki élèves ak juróom maanaam quarante cinq élèves ñu ne euh, tamit euh, nguur gi na bàyyi xel

moo gën sauvetage année scolaire parce que nag dund moo nekk ci kaw lépp moo jiitu lépp te lu ñuy jaaxal mooy bu ñuy tëj école yi ñaar fukki cas moo amoon ak juróom-ñaar tey jii ñu ubbi école yi mu am deux mille cinq cent yu ñuy wax cas positif vingt huit ñoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne seen bakkan rot na ci Covid dix neuf cas communautaire yi yokk ñu nekk ci situation complexe difficile mu am psychose. ñu ne nag nguur gi contexte bi lu tax ñu xëy rek ne dañuy ubbi école yi rax ci dolli boo demee yeneen réew yi ci tout tànk yi lañu ñu commencé ubbi mais ñun fii dañu commencé ubbi ci classe d'examen ñu ne nag nguur gi continuité pédagogique njàng mi gaa am na solo waaye nag tey jii urgence bi mooy sauver des vies humaines parce que ñun réewum sous-développé lañu suñu am am demeewul noonu ñun lenn rek la ñu mën a xeex mooy prévention mooy fagaru tey jii nag waa kër docteur nee nañu ñoom seen hôpital yi sax dañu saturé maanaam dafa fees dell ñun maladie bu ëppee rek def ñu indil coono gis ñu réew ñu am doole sax loolu da leen indil coono loolu nag la ñu wax di wax ni nguur gi nag ak lu mën ci am ëllëg ñoom ñooy responsable di ci dolli nag ni dañuy bañ tamit lu dal Japon dal Sénégal mooy le syndrome japonais waa Japon dañu tëj le 3 mars seeni école ubbi ko le 6 avril gouvernement nationaliste conservateur bu Shinzo Abe bu ñu ko ubbee waa conseil scientifique bi d'accord ñu ci woon ñu teg ci semaine ñu tëjaat école yi moo tax gars yi on parle de rétro pédalage japonais maanaam dañuy pédaler ba mu yàgg di dellu ginnaaw. Hmm. loolu la ñuy bañ mu dal te boo jàngee histoire boo jëlee mille neuf cent épidémie bu gën

Dakar Matin.